ku suturaal awray jullit bur yàlla def la xarit sa yawra ji su ko wisiit yowmal xiyaab wa ko yaman boo wuññi jullit ayib bur yàlla wuññi say ayib jébbal la gaayu lay laab tey mbër ma wax ko waa yaman jaajëf sama gaay maa ngi leen di siyaar bu baax a baax damay ñëw nag tey rapidement ci waajoo xamante ni musuma sawar di ci wax waaye nag faaw ma wax ci tey ndax yàlla suñu boroom jëf rek lay fay boo jëfee lu baax dina la fay ba nga kontaan nga jëf lu bon dina la fay ba nga mere sa bopp Adamo nag yàgg naa weer ay nit jël ay vidéo yoo xamante ni dañ ko koy envoyé mu def live am woo ci nga ñaan ko ñàkk koo ñaan mu pare wax ci lu la neex jël vidéo yi publier ko def na ko ay mag def na ko ku nekk ba pare boole koo reewande goo xamante ni foo ko jéggi rek foo ko natt rek weesu na ko ndax ñim no jël seen vidéo di ko publier xamoo ba xam ñooñu am na ñu ci jëlee feebar xamoo ba xam am na ñoo xam ni ci lañ jógee faatu xamoo ba xam am na ñoo xam ni ci lañ jóge seeni parent parents abandonné leen bàyyi leen àdduna ak alaxira ndax jëmm ji ndax yàlla moo ñu njëkk a suturaal fii ku nekkul ci bu ci gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi waaye bu doon aadamoo la rek du mos a jot vidéo sénégalais yi may ko doole buy def live ñoo fay fees bu defee vidéo ñoo koy partagé yenn chaînes yi yàggamti nañ aadamoo def kaa ñu jël ko doolaat ko kon ñooñu bokk nañ ci ñuy dooleel aadamoo mu nekk loo xam ne nag neexul ci xol ndax boo gisee ni muy def ba ku mu yor sa vidéo woo la ngay jooy ci xale yu ndaw yoo xamante ni seeni image day des ca site ba nga xamante ni ci la koy dugal nga xam ne bés dina ñëw ñu jóge fi seeni doom ñëw buñ gisee image boobu du leen neex waaye nag yàlla buy fay comme li ma waxoon léegi rek moo xam lu baax moo xam lu bon bu la fayee ci lu baax nga kontaan bu la fayee ci lu bon nga mere sa bopp Adamo nag yàlla da koo weer kenn publier wul vidéo am da koo tendre page xaw ma tànduru ko peej di ko jiñ boroom ñaari turi jël benn vidéo bu nuroo moom ni moom la sawaay def live am comme ni ngeen ko gisee wane ay awraam loolu mooy li nga doon def jaam ñi maanaam li nga doon toroxale nit ñi noonu la la yàlla toroxale te kenn toroxaloo lu dul sa bopp mu nekk loo xamante ni tey bu dee moom nit la nit njaay nit njaay la bu toogee xoolaat boppam war na ni man mii def naa erreur comme ni mu koy waxee ndax dee na def vidéo naan def naa erreur yi ma def waruma ko woon a def ndax lii ak nangam loolu ak torox munu koo weesu beneen bi si topp ba tey sénégalais yi laay waxal lan moo tax ngeen bëgg lu lan moo tax yéen kuy def lu bon ngeen gën a mën a topp ci ki nga xamante mi ngi def lu baax aada moo ban njëriñ leen amal lu dul xaaw yi sutura doomu aadama yi di publier seni awra te yéen ñi koy seetaan bari na ci ñoo xamante ni mas naa jël seeni vidéo yi rakk wala seeni mag partager ko léegi après nga koy may importance lu mu dëggal nga commentaire ba pare moom tamit mu jaxasoo ay nit ñoo xamante ni Sénégal yi dañ leen di bàyyi xel ku ci mel ni Wally Seck à chaque fois mu koy tudd di ko bëggee ba bañ na ko ba moom da koy défendre à chaque fois léegi ku mel ni Wally Seck tey su fekkee Adamo yàgg na def loo xamante ne tey jii nii rafetul yaa moom sa bopp te defe naa nit ki bu saxee si yow fenn fi nga ne ko saay bu fekkee li ngay def mënoo koo bàyyi pareel si man defe naa ni dina ko bàyyi bu fekkee li mu wax dëgg la mais dafa mel ni défendre bi nga xamante ni mi ngi koy défendre sawaay moo tax duñ ko wax dëgg ba da ngay dégg sax Adamo des fois nan lu ma euh, faramaare nii ñaan dama koy dama koy def ba njombeem wi bi mu ko defee rek mu naan maa ngi masawu sama sama yaay maa ngi masawu euh, waa faramaare ndax ñoom sax la njëkk a tudd avant ay waajuram te Adamo daa mel ni ku sànq la ndax moom lu ne lay eh, wax yaayam ci buy def live déjà def na aw njombe wax wax ju ñaaw naan sama yaay lii sama yaay laa pare naan wat maa ngi jégalu naan on s'en man lima def waaw wuma waaw bu ko neexee ñëwaat waaw man dama dama weere dama def lii nga xam ne kii boo xoolee ba si biir rek nga naan waa ji nii est-ce que alcool maanaam ku alku des fois dañuy jaawale ku dof ak ku alku dafa alku ndax li nga toroxal ci doomi aadama yàq leen tas say jàmbur bu la jigee rek ma xam ni faal <laughs> non yow yow yow yow yow nga mais nag gis nga li la fay Ya doon weeraate yalla daf la weer ci anam yo xamanteni ya ko def sa life live ñëpp di la gis te def na ni Sénégalais bu dee am ngeen ak fayda na gis na ko muy def live sank na ana ñi wax Adamo da xeewi Adamo ngor jigen la nangam xawma ñaata ci nombre la am yeen ñi may xas yéenay partage yéenay commentaire lolu lolu rek mo leen di wax rek xass la xass la c'est que ñun ñoo bëggul lu baax dem déglu ku ñuy waar teg ñu loo xamante ni dañuy jëriñ dem déglu ji waaju bon jii nii nga xamante ni muy aadam moom moo ñu gënal fuuf pourquoi ñu am esprit boobu ki ngay seetaan yàgg naa yàq sa mbokk di partager ay vidéo am yoo xamante ni kooku da ko envoyé aadamo aadamo jël ko tasaare ko woola di la di la questionner mel ni moom moo yor sa caabi Eh, ajana wala caabi sawara boo defee lii defu lii dama koy partagé boole kook rewande gu amul fenn mais yàlla moom buy fay lu baax di nga kontaan buy fay lu bon di nga mere ko lu deful dara lila la dal nii nag moom yaa ko teg sa bopp yaa doon weeraate weer nga sa bopp ba ñëpp gis sa awro yi nga xamante ni tey jii yow yaa ko moom perso summi di wone naan damay toggi tuuma ak fii la xar yi jaar rek waaye lépp loo gis àdduna rek leçon la moo tax yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy loo xamante dina jëriñ jaam ñi bañ di wane loo xamante ni tey jii nii lépp lu këppaat ci kaw rek di nga mere sa bopp fekk ni kenn defu dara Adamo man de musuma wax ci moom mais tey jii li la dal misaal la rek misaal la mooy li ma ubbee ci vidéo bi rek te moom laay tëjawaat gars acca les commentaires te bu ngeen commentaire ba pare bu leen fàtte partage vidéo yi après ngeen abonné te bu leen abonné ba pare ngeen ba seen close notification ba vidéo yu mën dugal leen ngeen mën ko am ku aw ray julit bur yàlla def la xarit sa yawra ji su ko wisit يوم الخياب وكو يمن بو نيلات لا جلت ايب بور يالا وني سي ايب جبل غايو ليلا تيمبر ما واخ كو وا يمن